asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi maa leen di leen ziar bu baax di ñëw tey incha allah muy suñu dernier numéro boo xam ne mu jëm si secret yi ma leen doon jox pour seen wàllu diggante yi diggante yéen ak euh, seen ay jëkkër wala seen jabar wala diggante ñi nga xam ne ñu ngi bëggante wala ñu ngi nekk si ay relation yoo xam ne ñu ngi ragal ñàkk ko euh, ñu ngi encouragé suñu. Euh, mbokk góor yi ak jigéen ñi nga xam ne sax euh, sëyaguñ waaye ñu ngi bëgg a sëy parfois sëy euh, am ñu fi taxaw ne du am wala nit taxaw def ci dara wala yu demee noonu daal ba mënta sotti ndax dañuy bëggante bëgg a sëy ñu si gën a bëri mais pour sëy bi am yenn saa yi day xaw a difficile day xaw a jafe ñu ngi leen a masawu di leen di ñaan ngeen gën a gën a gën a takkaayu gën a am yaakaar seen bopp ndaxte sëy farata la donc secret yi ñu fiy joxe yëpp pour ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a ñu ngi bëgg tegu si yoonu saatu mu taqim diggante yi nga xam ne mi ngi am ay ñagas-ñagas mu mën a rataax couple yi nga xam ne mi ngi xaw a doy waar mu xaw a neex ba nga xam ne ndaxte sëy moom bu neexee rek diggante ñaañi bu neexee rek day tax wërsëg bi dana fa dana fa bari kër gi dina am jàmm xale yi dina mën a tranquille dégg nga kon jàmm daal si la lépp xaj moo tax ñuy góorgóorlu suñ kéem kàttan di leen jox secret yi pour ngeen koy jëfandikoo alhamdulilah nag am na ñu ñuy woo dañuy sant dañuy gërëm comme itam am na ñu ñuy woo dañuy wax ne ah ñoom kat gisuguñ waaye nag mbir mi noonu la ñii dañuy gis ñu duñ gis waaye ñu ngi ñaan yàlla képp koo xamante si ni yaa fi di def secret yi rek te jublu si lu baax rek yal na la yàlla dimbale te ngeen fexe di am ijaaba ijaaba mooy nit ki da nga war a war a sell ndaxte lii alxuraan la alxuraan amul dara lu si rate doomi aadama bi si boppam na xoraat boppam dégg nga bu ko defee incha allahu rabbi mbir dana sotti kon tey secret bi ma leen jox mi ngi nii mooy xawaatim bi ngeen gis moom ngeen bind ñetti yoon xawaatim bi ñetti yoon ngeen koy bind léegi gis ngeen cercle boobu nekk si digg bi ginnaaw bi ngeen ko ubbee def kun bisimilahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallim nga def xawaatim bi ñetti yoon mais da koy bind ñetti yoon yoo xam ne du bokk ndaxte benn bi da koy waaw balaa ñuy dem sax si foofu maanaam euh, fi nga gis ni nga gis ne mu nekk cercle da ngay bind sa tur si kaw bind tur keneen ki si suuf ki nga bëgg sa tur si kaw tur keneen ki si suuf nga bind ko si ñett ñett yëpp benn bi da nga koy def fu sedd da nga koy lem ba mu sew nga sul ko fu sedd guy dégg nga beneen beneen bi da nga koy jël moom tam nga sëf ko fu diis a diis beneen bi da nga koy jël nga lem ko ba mu nekk téere nga wékk ko foo xam ne bu ngelaw li ñëwee dina ko yóbbu dégg nga su ko defee incha allahu rabbi euh, yàlla dana la dafa tawféex si diggante ki nga bëgg te itam ki nga bëgg moom toujours rek naa la jox benn secret ki nga bëgg noonu ah booy wirde lii mu turam si wa alxeetu aleyka mabata nii ak wala xadd xamat bihi wame biha da nga si gis natiija dana nekk lu baax a baax a baax li gën a yombal sa diggante ak kooku am na nag ay yeneen mbir yoo xam si nii ni nga ñëw sóoraale dinañ si ñëw si ay mbir yu am solo yu jëm si wàll yi incha allah waaw kon tey nag lii laa indi loon maa ngi yem fii di leen jox dig daje ba suba ak jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah